amna na yu am solo ñu si def li donc euh, ñul rek moy que ne ba ñu paree deux mille dix dugg deux rek mars déjà Covid 19 bi dugg te xam nañ ne bu mu duggee mën naa am ba amna lo xamantene xamante ne dana ko soxel fi ak at bi jeex mais déjà ci 2019 mille nañ ne ci walu mortalité maternelle ak euh, néonatal moy euh, donc jigen yu wërul yi xamante ne leen di topé bé dara du leen faagaagal lolu am nañ si ay jéego yu am solo ñu def.

amorcé woon nañu vraiment benn reprise indicateur yi mu nekk ay indicateurs yoo xamante ne am nañ si donc satisfaction mais nak il faut ñu xamné ne ba ñu duggee 2020 rek dès le mois de mars dugg nañ ci ben pandémie bo xamantene aduna bi yépp moo koy jooy te Sénégal muccu ci motax tax euh, fekk euh, at jeex mën na am ba indicateur yu bax yooyu xamantene commencé won nañ ko am mën na am ba donc mu am donc jeexital bo xamantene jeexitalu wàññiku la mais.

bu ñu présenter fekk euh, midi inshallah recommandations recommandation yu génn danañ si pour mu nek ay recommandation yo xamante ne permettre impactu 2020 bi déjà du graw mais aussi nous permettre ñu xam fon lañu jëm li ñuy wax tam moy que président de la république son excellent le président Macky Sall am na bu am solo si secteur bi bëgg fek 2020 post covid ñu def donc un effort investissement ak effort réforme bu am solo secteur bi ba donc euh, incha allah lu mel bu fu amatee ñu mën gëna gën préparer wu loolu tam am nañ si d'ailleurs euh, fekk euh, fin septembre danañu am ben leul bo xamantene conseil présidentiel lay donne pour donc mesure yoy yep président man ko donc mettre en place ce secteur bi bu ko défé ñu am un investissement massif mais bo xamantene dañ koy addo si say réforme yu am solo